dimanche 18 février 2024 ca arène nationale ñu ànd ci ak petit production promoteur bi mujjee ñëw fexe ba ñu ràññee mbokki amateurs yi bàyyi leen xel bu baax li petit production la naaru sokaas la jël jàmbaar di ndaanaan traîné ay ndaw yu bari daal koy boole xale bi nga xamante ne nii mooy lasikiri di yaakaaru ngor yoof ak wakam sita bu ngor petit ne bés boobu mbokk yi parrain d'honneur bi du kenn ku dul Amadou Ba premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar combat spécial bi mu ne fourrière bu boobu Sidi di coordonnateur mouvement ànd naatal suñu askan ci bés boobu mbokk yi Babacar Balde dina fa jàkkaarloo ak caatu Ndakaar combat boobu la jël mbokk yi daal koy jagleel Ngoppa di commerçant bu mag ci marché Sandaga Jàmbaar jàkkaarloo fa ak Ngoma caatu Kéré jàkkaarloo fa ak Boole numéro 2 Matar Guy gi jàkkaarloo fa ak Pape Mbaye numéro 2 Bébé Dégol dina fa jàkkaarloo ak Blende Junior Tund bu Faas fa ak Elton numéro 2 Zemre bu ndaw jàkkaarloo fa 2000 francs loge officielle bi 5000 francs animation mu ne Momo ak Mbaye sponsor leader ba ñu Pro Lab Tampico Huile Jador ak Harmonie kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 18 février ci ak petit production bu dëgg rek day neex dafa xam lamb ngeen jëf yi mbokk internautes yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di fii ci arène fekk fii ki nga xamante ne moom mooy Jamaïcain borom mu taxaw ak manageru Bébé Diène waaye taxaw tamit ak ki nga xamante ne moom mooy manageru Zarko gannaaw bi nga xamante ne combat bi taxaw na ñu ci doon dégg yenn détails yi ñoom ñëpp nag ñëw nañ jël seen responsabilité ñëw fi nga xamante ne moom moo di CNG pour régulariser li nga xamante ne moom moo di combat bi dugg nañu bureau njàmbe génn nañu régularisé nañ wala régularisé wuñ loolu ñoom ñoo ci ànd ay leeral waaye nag manager yi surtout manager yi ñoom laaj njëkk a jox gi bu ko defee ñu nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi leen di seetaan ànd ay leeral ci li nga xamante ni moom moo ñu dajale tey maa ngi lay nuyu bu baax euh, maa ngi lay euh, fay sëñ Mbaye Babacar. maa ngi lay fay. Hmm. ginnaaw baatu onsu bilaahi mina seytaani rajim maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam bon combat bi lañ ñëwoon doon. xaatim si CNG xaatim nañ ko ba pare contrat baa ngi nii. kon combat bi léegi sooy officiel mu ngi ci yi CNG. waaw combat bi signé nañ ko pour le 4 août incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. yow en tant que manager ñu yoroon ki nga xamante ne moom mooy Bébé Diène démb ak léegi ñu dégg ci coow yi bari lan moo nekkoon seen position bi affaire yi amee coow. non man promoteur laa waxanteel waxaale nañ ba d' accord temps laa lay fay temps laa bëgg wax nañ ba d' accord. kii mooy adversaire ñëw na. woo nañ ma yëpp sayee ma ñëw naa signé naa loolu mooy sama rôle. Mhm. waaw man ay polémique ay wax yi man mag laa dox doxuma ci yooyu sama liggéey daan su ma ko waree def dinaa ko def. Mhm. wax nañ ba d'accord mbër mi dama koy wutal xaalis comme na ma ko waxee woon xaalis baa ngi nii ñëw naa signé maa ngay dem. mbër bi xaalis rek nga koy wutal est-ce que adversaire yi ñu koy dugal parfois tamit waroo ko mën a seetlu ku mel ni Zarko tey Sénégal ni euh, Bébé Diène mënu ko daan lan moo tax kon nga dugal ci Zarko. Zarko ñaata mètre lay xamoo lu métti ngembo Zarko ñaari mètre lay ngembo Bébé Diène ñaari mètre lay ngembo bëre la bëre reenu ñaambi la kenn xamul fan lay demee mais l'essentiel ku ci nekk da nga ànd ak say mbokk ku ci nekk da nga entraîné lool la. foofu nga ko teg fo man làmb làmb la làmb weesuwul làmb bés bu nekk nga dégg sëriñ ne diw mooy daan diw nii ñu ñëw ñu lënga ko yóbbu ñaari ndam mooy dugg mais benn mooy génn l'essentiel bu ne la na nga ànd ak say mbokk def la nga war a def na nga entraîné ba ñëpp boo simee ko maa ngi entraîné bare wax la boo simee ko ñu xam ne kii entraîné na man foofu laa teg làmb kon lan nga ko amee dinaa ci combat bi. ñu préparé rek def na daan def rek jënd billet ñëw feesal seen place supporter seen mbër ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Zarko Bébé Diène ay jeunes lañ ñoo bokk ndey ak baay ku ci daan fi nga koy féetee. violence amu ci leneen amu ci du war a bëre di ñuy bëre suñu warul bëre ñeneen ñuy bëre rek dimanche bu nekk nit bëre samedi bu nekk nit bëre. yow maa ngi ñëwaat ci yow léegi Assise maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la sama doom nday maa ngi lay delloo ziar bu wér. na ngeen jàmm waaw nuyu ëllu lamb. Mhm. di nuyu monde entier di nuyu mhm. waaw. gis nañ ni démb def nga ay sorties. Mhm. wax ci li nga xamante ne moom ngeen séq ak Jamaïcain. yàlla dogal nañ ñëw ngeen dugg fii bureau CNG. Mhm. ngeen combat bi yan li ma ciy tàggu mooy li ma li ma ciy wax mooy li ma waxoon démb ak barki démb rek Jamaïcain woo nañu waxaale na mbër mi juboo nañ si côté finance côté administration côté date côté adversaire. Mhm. dem nañ régulariser ko au niveau du. si non non ci avocat bi. signé ay kayit tey mu woowoon ñu pour ñu ñëw régulariser ko au niveau du CNG ñu ñëw. remplir suñu contrat rek. Mm-hmm. waaw. maanaam yow li la yoon may rek loolu nga def. ah mais loolu moo ñu tënk di nit ki moom lu la tënk rek ngay def waxaale nañ yëkkati dina xaalisam jox ñu li ma waxoon démb ak bërki démb rek heure bu la woowee ne da dama bëgg régulariser nga ñëw régulariser ko. mu jox leen jox na leen avance ba mat sëkk. jox nañu avance ba mat sëkk. cinquante pour cent. cinquante pour cent lañ juboo woon liñ juboo rek la ma jox. Mm-hmm. waaw signé nañ ko fi ñu ko war a signé. li desoon muy régulariser ko au niveau du CNG te démb si guddi la ma woo ne ma tey bu ñu xëyee ñu daje fi ma ñëw man ak sama doyen Mbaye Diagne ñu ñëw accomplir suñu kii rek. Mhm. waaw loolu la. kon coow yi ci amoon yëpp féete na boor. wala wala wala non coow moom engagé wu ma moom wax dëgg yàlla man coow moom engagé wu ma ndax li ma leen waxoon laa lay wax. Jamaïcain lañ waxaale loon Jamaïcain moo ma jox xaalisam Jamaïcain laa signé loon kon suñu ñu nee ma kaa ñu régulariser damay ñëw régulariser point barre. non loolu duma ci dugg. aywa jam ñu ngi lay nuyu yow tamit di la ziar yan kàddu nga ci yokk ci li nga xamante ne. Lamine maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yu ñu suivre ci diaspora yëpp fu waay mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yàlla bu baax démb ba léegi gis nañ ñaan ñi ñaanal ak encouragement yi ñuy jox ak nit ñi doolelee di sant nañ njabootu làmb yëpp ndax wax dëgg yàlla lépp lu ñu doon def nañ gën a yokk góorgóorlu si njabootu làmb di nuyu kilifa yi nekk ci làmb yëpp. rawatina ñaari menacé yi taxaw muy siise ak père Mbaye Diagne mhm. lii lañ soxla ci menacé menacé royuwaay la menacé jàmbaar lañu jóge père Mbaye di wax dañ yor mbëri pour utal leen xaalis waaye amul benn menacé buy jël benn engagement te waxtaanoo sa mbër wala tàgguwoo ci sa mbër kon bu yenn détails waree am ñoom ñëpp côté as mu jël ay responsabilités am def lim def rek loolu la war a def sant nag CNC bi nga xam ne. ñoom lañ teg ci làmb pour ñu coiffer làmb ndax nag ñoom lii la ñuy xaar si ñoom président Birasène ñu ngi koy nuyu bu baax ak njàmbe directeur ak képp ak ku nekk CNC ndax lii la ñuy xaar si ñoom bu seen njaboot nekkee ci discussion ñu xool lu leen yoon may ñu def ko te tey def nañ ñoom ñëpp lu leen yoon may mooy promoteur bi ñëw na indi na licence su mbëri pare na pour régulariser régulariser nañ ko waaw di nuyu nag presse bi yëpp di sant. njabootu làmb yëpp comme ni nga ko waxee rawatina promoteurs yi promoteurs yi nag ñu ngi koy commencé ci président Pape Abdou Fall bàyyiwuñ kenn nga xam ne mooy président promoteur yi jëy président authentique ñoom Bamba Faye bàyyiwuma kenn waaye Lamine dañuy defal mention spéciale Abdoul Aziz Ndiaye defal mention spéciale di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax ak xewal sutura di yu Baye Aly Ndiaye rakam di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa jàmbaar production tamit gis nga assurance mort a Dia Fouta production boobu ah ñoom ñëpp depuis suba ba léegi ñu ngi ànd ak man Modou Baye Fall nekku fi ma nga Castor Diop waaye minute bu nekk mu ngi may woo Ousmane Sy Jasinaar maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla démb ba trois heures du matin ñu ngi may woo Lamine Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi bul jàpp ne seen yoon néewu ci dara waaye bëgguñ ku ñuy néewal doole bëgguñ ku ñuy toroxal te àdduna lépp lu am rek ngëneel la. di nuyu tamit yéen presse bi fi toog yëpp di nuyu assurance bi nga xam tamit depuis suba mu ngi fi teewal fi waa jàmbaar point di nuyu Ba bu a baax a baax di nuyu sama papa père Ba nuyu ñoom papa Sow yëpp. léegi daal c'est officiel. waaw démb ci ba léegi wax ba 4 heures de matin may woo Pape yow tamit di la sant di la gërëm di nuyu waa TV yëpp di nuyu Buzz sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. jubóo ngeen léegi ñëpp maa ngi leen di siyaar di wax ne lii mooy. lamb lii moo leer c'est officiel. c'est officiel fii si CNC. Mm. régulariser nañ combat bi. Mm. la 4 août incha allahu rabi bu yàlla defee jàmm. Mm. Sarko ak Bébé Diène ñoo ñëw sëgg fii ci arène nationale. dégg naa première ba Angleterre. waaw lu ne mën naa am incha allahu rabi. yi di ci dugg. ndax nag xam nga comme dañu commencé affaire bi bëri ay yàqkat kon fi ñu jëm yëpp duñ ko wax ma daal li mu waxoon mu ngi ci xale yi la bëgg a bëri xale yi saf sàpp yi. te Bébé si la bokk ndax combat bu taxaw coow li mel nii ci àdduna bi gëj naa am ci làmb yàlla na doon nag suñu njëglaay ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabbil waaye lamin maa ngi nuyu sama avocat sama xarit Mokh Mouhamed Sey doomu maître Ousmane Sey maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah dañ ñu roy waay la yal na ko yàlla defal jàmm di nuyu Sey di jox seen wàccuwaay Jib Samb aada baaxum ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Sarko ak yëpp di nuyu bébé Diène ak estafam sama papa Mbaye Diagne bu baax di nuyu Assise sama grand sama xarit maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal xewal di nuyu ñu fi teew yëpp. kon ko ma Pape Mamadou kañ nga koy taxawal dem ne nga ko taluma ko. fan yii incha allahu rabbi dinañ jublu ci yeneen combat yi daal Sarko Bébé Diène na ko àdduna bi yëpp xaar ko Sarko bëggee woon Bébé bi bëgg ku bëgg fu fanaan la ak ku ko ko wéttali tëjal buntu du leen boole la. jërëjëf noonu kon rendez-vous le 4 2024 ca arène nationale ñu ànd ci ak petit production promoteur bi mujjee ñëw fexe ba ñu ràññee mbokki amateurs yi bàyyi leen xel bu baax li petit production la naaru sokaas la jël jàmbaar di ndaanaan freiné ay ndaw yu bari daal koy boole xale bi nga xamante ne ni mooy lasikiri bi di yaakaaru ngor yoof ak wakaam sitta bu ngor petit ne bés boobu mbokk yi parrain d'honneur bi du kenn ku dul Amadou Ba premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar combat spécial bi mu def fourrière mouvement ànd naatal suñu askan ci bés boobu mbokk yi Babacar Balde dina fa jàkkaarloo ak caatu Ndakaar combat boobu la ñu jël mbokk yi daal di koy jagleel Ngoppa di commerçant bu mag ci marché Sandaga Sey Jàmbaar fa ak Ngoma caatu Kéré jàkkaarloo fa ak Boole numéro 2 Matar Guy gi fa ak Pape numéro 2 Bébé Dégol dina dina fa jàkkaarloo ak Armée numéro 2 Ndiobène jàkkaarloo fa ak Elton numéro 2 Zënga bu ndaw jàkkaarloo fa ak ordinateur numéro 2 Petit production ne ci bés 5000 francs animation mu ne bu moom ak mbay sponsor leader ba ñu ne Pro Lab Tampico Huile Jador ak Harmonie kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 18 février ak petit production bu dëggee rek day neex dafa xam lamb bu yàgg ak lamb